jërë ngeen jëf mbokk wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar bu ngeen gisee toogaay bi na xam ne tey ndaanaan leen seet si champion leen seet si waaye koo xamante ni gëj na ci làmb te gëj nañ koo gis dama koy bàyyi mu nuyoo ah ñu doog a waxtaan bi xam naa ne nag xaw ngeen koo gëj a gis tuuti ndax ma est-ce que bàyyiwul làmb sax buuba fi nuyu naa la <laughs> waaw ñoo ngi lay fay di gërëm ñëpp di gërëm sama gars yi di gërëm Pape Gueye mii ak yër ma fii nii ba ngeen mën a toog fii di def émission bi di gërëm gars yi fi toog tamit waaw maa ngi gërëm jabaram di gërëm waa Fass Mbaaw yëpp fay naa leen bu baax a baax yéen mais ñu gëj la gis ak état de forme bi ma gis man dama ne woon Bouba Fit bàyyi na bëre dama ñëw seet si ko nii rek mais bi ma ñëwee gis ak état de forme bi macha allah toogaay bu yàgg bi lan moo ko waral. man xawoon naa kii sax ci làmb ndax làmb doo xam da ngay defar ba pare doo xam lu la yàqal waaw mais ay Pape Gueye waaw ba ci maa ngi nuyuwaale Siteu Siteu tamit am na lu mu ci def at Mama Lamine ñoom ñoo ma Siteu menn forcé du ma jël ñuy ànd entraînement si tafayal ma saal waaw ñoom Pape Gueye di si jàpp ak yooyu noonu kii ma lay wax nii bu dee boo nga jàpp ko jaay ko suuf la. waaw bu baax a baax di gërëm gaa yooyu noonu waa jàmm gën ñëpp di gërëm waa Fass Mbao yëpp mbëri fi nekk ñëpp. di gërëm waaw képp ki xam buuba quoi buuba xam la rek maa ngi lay gërëm waaw di di la ñaanal mala sum waay corona bii nii yàlla jëlee ko fi si jàmm ak salaam ñu kay dégg rek ba mu dal kenn ci daraja rasulullahi waaw. comme ni ma koy waxee rek Sénégal dañoo mën a fàtte ndaanaan dañoo mën a suul ndaanaan ndax kii may toogal ni tey def na lu bëri ci làmb ndax moom mii bëri na fekk ay ndaanaan yoo xamante ne tey yóbbu nañ làmb fu sooy te bés ba muy jàmmaarloo ñoom stade bi da ba mu fees amateur yi parce que ndaanaan la làmb da ko jox akam bu mat xanaa ñu bàyyi ko mu mu wax palmarès bi ñu fàttali ko tuuti après doo ko wéyalaat waxtaan bi euh, ñaata combat nga jot a def. man bëri naa huit combat waaw. ok mën dellu si mën nga ma dellu ci ñi nga xamante ñoom jot a waaw Cheikh Ngiraan numéro 2 laa njëkk a bëril premier combat. topp ci Rambo. Rambo waaw Rambo. après ñoom Treize Ndiir. Mhm. non avant Treize Ndiir Boy Bawal. Boy Bawal mu oos mi. Boy Bawal dama ko dama doyu met daan ko. Mhm. dugal ci kii bi rek nga xool ko at ñoom Treize Ndiir ñoom bébé Modou Lo. mag Treize daal combat bu garaaw la woon man xamoon naa ne dama xay daan man sama jëm bopp. xamoon dama koy daan. barki Seydina Mohamed tuuti nag ku ma gis xeb ma ñu jóge ñu jóge woon kaw wax dañu doon jooy. ak ni mu toll tànk yi. bon <laughs> gis nga nit booy dem xare bul sóoraale kii ni mu toll. wóor na Rasulaay te tànk boobu laa na coppet dëj ko mu toog. billaahi bëri du ay. yoon Ibama Ibamaar la woon. Ibamaar waaw di ko nuyu a passage moom tamit waaw li mu bëgg moo xam yàlla defal ko ko. waaw ñun ñëpp doñ ñu ma jóge si bëre kii est ce que du bébé bébé Modou Lo waaw bébé Modou énergie jóge fa bëreeg Balla Gaye Junior. Balla Gaye Junior man nag ñoom ñëpp ak ñoom double Tyson ak yooyu Kaolack ñooñu ñoo daan. ñoom ñoo daan. maa leen koy ñaan combat yaa ñàkk ja ah, na trop. yaa ñàkk daw na sol ma wala su ma waaye ma dóor ko tànk mu xala ma ma xala ko mu dali fële arbitre woowaat ñu. si lañ bëree bëri réew ma amoon problème zone di bëtt faat mu ràng ma tànk bi ma toog. waaw. làmb moo bindoo noonu rek. mais boobu ak léegi kenn gisuloo nga génn gisuñu la fenn des fois dinañ la seen daal sa sa sa poulain di bëre nga ànd ak moom ñëw mais ak léegi kenn gisul bu kenn gisul bu fit kenn xamu ci lan la nekk. waaw mais tamit du dara boo doon war na rasul laay ñu ngi ci entraînement yi di entraînement bu baax yaa ngi dégg nee naa la ñuy entraînement buñ ñu laalee tamit man la su ma waaye dañuy ñun ñun bëri ñu am. wër na rasulullahi laa watan nii mën nañoo toog ngeen yaakaar nekk ñu ci entraînement ñoo ngi ci entraînement yi ñoo ngi jàppale booy ak yooyu ku la gis kenn du wax buubu bi mooy ngay entraîné mais loolu garaawul yàlla yàlla moom ma la suma waay moo yor wërsëgam nit moom doo topp nit bu mu sës naan ko ay tëgal ma combat man du def noonu wër na rasulullahi ndax am na lu ma def ci làmb man promoteur moom mooy fekkal tëgal ma combat barke alxuraan karim laa watal nii loolu moom boo amul mën sum waaye xam naa ne du ma bëri ndax mooy loolu ko quoi yàlla moo leen dénk ñuy tëggal combat yàlla dénk ñuy bëre kon yàlla ñuy méngoo rek waaw ñuy def lu ñuy bëgg ñun tamit ñuy def lu ñuy bëgg rek tamit ah, su ma déggee wax ji maanaam yow pare nga mais ñoom ñoo la seet seegul ñu la war a seet jeex na tàkk waaw loolu am na ñu may woo sax barke alxuraan Pape Gueye mii nii du ma bàyyi ma fen moom am na ñu muy waxal ak yooyu noonu mais yu bëri man maa doon rejeté waaw pour pare dëggantaan nga xam ne boo dugg see ñëppay kontaan man xam nga damaa bëri ay fans amateur mm. wër na Seydina Mohamed làmb moom nekkul da ngay jékki-jékki rek sans pare nga ñëw nii déedéet da ngay def lu pare. man ni ma la gisee taxawaay bi nii man xam naa ne fi mu toll nii jekk nga. sëñ man dama lay firnde euh, firndeel leen gis nga mbër yu mag yi sax wër na Rasulullah laal waata ni man daa xeex. fi nii fi toll nii suñ ñëwoon ci làmb ndax. Euh, am na ñoo xamante ne ñoo ngi fi am na ñoo xamante ne làmb bàyyi na leen fi mais tey su ma ne woon Bouba Fit na na tànn boppam ay adversaire hmm. ñan nga may wax. non instant bii nii man nekk moo fii di tànn ay adversaire mais xam nga tey xam nga tey xam nga ci làmb xam nga damaa ci làmb te mbër yi nekk ndajiy taamu ñoom yaa ngi dégg moo tax ma bëgg na yow nga taa bi bu ma amee benn combat ñaari combat damay dellu fu ma de nekkoon wër na Seydina Mohamed jarul may laaj kenn ku ñëw bu baax na barki alxuraan tooni sa grand bi toog ko bu ko tey promoteur woon waaw ne ko xaalis baa ngi nii ñëw jël si ko léegi bu ma fit kan la bu ma fit kan la bëgg a ma dem seet ko ku mu bëgg ma taxawal xam nga moom moom dafa nekk làmb Bab Gueye mhm. kii bëreel naa ko combat Bab Gueye léegi bu fit yow koo ma koy joxal. waaw. ci làmb ma ci ñaar ba ñett. Ah. ba xam moom dina nangu ko que nee na boobu ba léegi moo ngi fi kay. am na benn mu ngi doon gabaar. gabaar si ngeen. ñeme a jël gabaar si. gabaar baax na Youssou Ndour na. Youssou Ndour man bu baax non Youssou Ndour am na combat. <laughs> a moom i sax xam na ko. <laughs> déedéet parce que xam na nit ñi ba ñi lay seetaan tey ci wasaare làmb gën ñoo gis Bouba Fit mais kuy dund làmb xam nga Bouba Fit ndax jaloo bi mu fi def boobu fit macha allah mais xam nga tey boo gëjee ci làmb soo dellu see war nañu mën a wax fii ngay taxawee ndax xale yi bari nañ xale yi dañoo wex nag waaw <laughs> am loolu de fi nekk dañoo wex xatt kay léegi nag moo ma bëggoon nga xool benn catégorie boo xam ne di fa mën a dugal sa bopp bu ma nekk bu man ma naree mel noonu ma tekk sama ngemb wër na Seydina Mohamed oh, mais boo fi làmb bàyyi na la fi nag de waaw raw dëgg la moo tax ma wax la loolu ne ku ñëw baax na tamit man fa laa la kii yow dañoo bokk dañoo déggoowul rek billaahi kon fi mu toll amoo ci ci ci ñi nga. xamante sax bu ñëwoon baax na. ñoom kay laaj nañ laaj boo fi rek mu ñëw bëre. booy amagul combat taxaw naan làmb te koo ci man li ma ci jaaxal mooy koo ci seeti. Ah. mu ne sama avance ñoo ngi koy dox mais kenn ñemewu koo jël. moo dañuy sóob rek. <laughs> moo dañuy sóob rek. billaahi waxu mbër moo demee noonu quoi war na ma am seerafaal ñun làmb tamit nekk si tey ñun yàgg la ñoo seetaan ay mbapat gis nga kii ma lay wax gay nii moom mbitu mbër la woon tànk bi boo ko laaloon da lay dóor mbot bëral naa ko combat te boobu suqu mbër laa woon suqu ñoom Mam Mor ay ñoom Ousubande Ousubande moo nekkoon à top. Hmm. maa ngi koy nuyu moom ay ñoom Pape Gueye yii nii yaa ngi dégg nekkoon ci koñ bi ñoom ñoo tax ñu bëgg làmb ko waaw booy yi tamit maa ngi leen di bëggee ñoom jaxa waaw ñoom moo ah gars yi yëpp gaayam yëg ñëpp gars yi sama gars yëpp maa ngi leen di bëggee ndax ñooñu tamit ñoo leen xaw a taaral ci làmb quoi. Hmm. gars yi yëpp ñoo leen xaw a taaral ci làmb wër na Seydina Mohamed ba pare commencé def yenn yi nii gis nga nit bu nekkee ci yow sa si yow bàyyi liggéeyam yaa ngi dégg di def lépp kon kooku war nañ ko xool di nga taxawu tamit ndax dafa bàyyi lépp ngir ñun quoi tamit te man moom maa mujjee génn Fass Mbao kenn ñu bari sax yaakaaruñu woon bu dee génne te man bari bi barki Seydina Mohamed ñoo ko def ci man ma doon football latéral gauche laa doon football. waaw latéral gauche laa doon football mais. am kay barki Seydina Mohamed. wóor na rasulullahi ba léegi. waaw lu wér loolu moom mooy sumbaay loolu ñu yàlla jagleel. barki Seydina Mohamed te làmb ji ku yaakaar ne buuba benn naxa sa xandak la yaa ngi nax sa bopp barki Seydina Mohamed bu dee bëri mën nañ ko bu dee xeex mën nañ ko bu bu dee lépp daal mun nañ ko war na rasulullahi gëj a bëri nag bu mu tax ñu naan buuba mii nii gëj na bëri ak yooyu déedéet ci digg stade bi la def nii léwétoo rek songante ku daan kii sa morom loolu du ñu làmb ndax man dama lay suivre ngay andi ay bu baax a baax di leen wax ni ñuy taxawee boo xoolee Mamour bu Fass rek moom champion la hmm, waaw mais bien sûr muy bëreel ñoo indi mu am ndam lu sedd guy waaw loolay làmb daal lamb moo demee. ma dégg léegi nga ne dafa toj mbapat. waaw mu ñëw dafa xaw a tuuti. waaw Mamor mi toj mbapat nag di toj arène bi. waaw moo <laughs> koy mi yaa toj booy daa toj. booy booy zil yooyu noonu Ama Baldé sax bu ñëwoon ma la su ma waay dëpp ko. yaa nga wax ci mi ngeen jël nga wax waxi Ama Baldé. waxal ci maama yaa mii kaa doole maama yaa ñun lijjante wuñ ko barki Seydina laa la waatal nii billaahi wallaahi ñun amul ku ñuy lijjanti làmb la làmb la waaw c'est le gañ ko waa tamit ku gay gañee man baax na mais Kara laay ñaanal victoire <laughs> loolu moom jeex na moom Kara Dollé laay ñaanal victoire billaahi waaw di waaw man mënu maa wax nag di gërëm xam nga nit bu la yëgee tamit da nga mm-hmm. waaw man damay gërëm gis nga Siteu dafa nekk ku baax boo xamul nag maa moom dund nañ fi lu nekk wur na Seydina Mohamed waaw Seck man du ma nëbatu gis nga Seck Abdou sekk maa ngi koy gërëm bu baax a baax wur na Rasulullahi ñoom Seexu Maama Lamine Assane gaa yi yëpp ñoom Jili Mbàkke gaa yi maa ngi leen bëggee ko gaa yi bu ñu ma gisee dañuy mel ni barki Seydina Mohamed dañ ma jàpp quoi dañ ma jàpp barki alxuraan bu ma jógee foofu noonu di gërëm waa Fass Mbaaw yëpp waa fas Mbaaw cat ba cat caw sa xiir moom maa leen di gërëm bu waa caw sa xiir falaa na doon defee émission bi léegi nii mais Guèye moom dafa doon ci ñun lu nekk moo tax duñ ko mën a kii noonu quoi moom lu am rek dañ koy ñëw yëgal waaw di gërëm gars yi yëpp di gërëm Fass Mbao daal bàyyi ma kenn cat ba cat sa Ousseynou sama mag maa ngi koy gërëm waaw di gërëmaat Pape Gueye bu baax a baax kii nii grand bu baax la wër na Seydina Mohamed di gërëm ñoom ali saw ñoom ali saw ñii at grand yi nii maa ngi leen gërëm bu baax ndax ñoom bu leen neexoon ñoo yor seen alal bu leen neexoon ñu téye ko te dañoo toll jamono joo xam ne kenn jàppatuful kenn te ñoom ñoo ngi def seen waar nag boo xoolee kii suñu jumaa ji jënd na ay clim booy bu ndaw la yóbbu fa ay karo boo demee xool suñu jumaa ji yaa gogo jumaa ji dafa waaye yow mooy macha allah moo tax yàlla moo koy yëkkati gis nga yooyu boo koy def yàlla dalay taxawu wër na rasulullahi di la ñaanal rek luñ luñ bëgg ñoo ko xam yàlla defal lañ ko waaw. gis ngeen noonu lay demee ci Wassare làmb dañuy fekk koo xamante nii day bëri wala koo xamante gëj nañ koo gis ñu génnee leen ko parce que ñun li may wax chaque jour rek làmb dong moo ñu intéresse làmb dong moo ñu ñor di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ba beneen yoon incha allah jaajëf